la Présidente, Monsieur le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi, Malik, Monsieur le ministre des Finances, du Travail, chargé des relations avec les institutions, Mesdames, Messieurs les collaborateurs des ministres, mes très chers collègues. Monsieur le ministre, je voudrais vous saluer, vous féliciter pour votre reconduction à la tête de ce département. Vous êtes un jeune cadre dynamique, compétent. Qui a eu à faire ses preuves parce qu'un de mes collègues disait tout à l'heure, c'est parce que vous étiez de la causière que vous êtes à la... C'est parce qu'il ne vous connaît, il ne vous connaît pas. Il ne sait que vous êtes un brillant intellectuel, un cadre au niveau du ministère des Finances. Je pense qu'après, je me chargerai de lui transférer ton CV pour qu'il comprenne davantage que le président Macky Sall a des jeunes cadres dynamiques compétents et qui servent son pays. Je voudrais saluer vos collègues, vos collaborateurs, particulièrement mon très cher ami et frère Tamsir directeur général de l'ANPEJ, mon collègue euh, Jimo Soare et tous vos collaborateurs, je peux les citer un à un. Monsieur le ministre, la question de l'emploi des jeunes occupe une place prépondérante dans la vision de son Excellence le Président de la République. Et cette vision s'est traduite par des actions concrètes à travers la mise en œuvre de structures et programmes tels que l'ADER, l'ANPEJ, Khoyundaouni, ainsi que des projets et programmes logés dans d'autres ministères qui ont permis de booster considérablement l'emploi des jeunes dans notre pays. Parce qu'un de mes collègues l'a dit, la question de la jeunesse est une question transversale. qui est prise en charge dans plusieurs domaines, dans plusieurs ministères. Aujourd'hui, comme l'éducation nationale, si tu prends le budget du Sénégal, quand tu prends ce qui est dédié à la jeunesse et à l'éducation, pratiquement le budget du Sénégal serait épuisé parce que la question de la jeunesse est une question transversale. Toutefois, Monsieur le ministre, ce qui est noté au Sénégal depuis quelques décennies, c'est que la situation de la population reste marquée par une forte croissance démographique. Et ces tendances démographiques sont telles que la jeune main-d'œuvre ne cesse de croître. Et j'en veux pour preuve le dernier recensement. En 2021, nous étions 13 millions de Sénégalais. Aujourd'hui, nous sommes 18 millions de Sénégalais. Et sur ces 18 millions de Sénégalais, 70% à moins de 35 ans. Et moins, euh, 39,5 en moins de 35 que le président Macky Sall a un défi. Et le problème de la jeunesse, le problème de l'emploi de la jeunesse, mais ce n'est pas un problème spécifique au Sénégal, c'est un problème mondial. Et le ministre du Commerce, porte-parole du gouvernement, la dernière fois, a dit quelque chose de très important et les gens l'oublient souvent. On parle de migration. nit ñi dem nañ xale yi dee nañ xale yi nangam nangam mais nee nañ ceux qui ñi nekk à l'étranger Sénégal 2 pour cent la fa am mais xanaa loolu da ngeen koy fàtte loolu da leen ko def seen xel. mais bu ñu nee nit ñaa ngi dem dee rek c'est comme si sénégalais yi jeunes yëpp ñoo dem dee déedéet am na ku ko wax fii sànq sama collègue bi xale yi nga xamante ni dañ leen a jàpp sàcc loo leen toj loo leen ay ay kii euh, ñu def nekk ay brigands ay bandits des voyous ñu leen di traquer ñooñu duñu daw te loolu yéen la pour en revenir maintenant euh, à au sujet je salue sous ce rapport les efforts que vous y avez consentis sur le problème de la jeunesse avec votre collègue, le ministre en charge de l'industrie, à travers notamment l'initiative des DAC, domaines agricoles communautaires, qui est dirigée par notre collègue Guimond Soiré, qui fait un travail extraordinaire et je voudrais le féliciter ici devant tout le monde. Ainsi que la mise en place des agropoles dans le registre de l'entrepreneuriat. parce que président Macky Sall ñëwul rek ne voilà jeunesse jeunesse jeunesse dafa am xalaat xeltu plan Sénégal émergent muy régler lijjanti problème agropole ñuy wax waxu entrepreneuriat te entrepreneuriat boobu ñëwul rek ne ñëw leen entreprendre non dafa nekk créer une formation pour que ñu régler li nga xam ne mooy employabilité des jeunes non seulement jël éducation bi daal di koy retourner fi nga xamante ni mooy ci scientifique yi régler ay ISEP pour que jën xale bi bu jàngee deux ans après mu mën a opérationnel am liggéey mais loolu di nga am liggéey mais liggéey bi demul na da ngay dem rek ñu recruter la non dafa indi entrepreneuriat ñu leen di former pour que ñooñu mën a am xalaat boo xamante ni li ñu leen di jox dinañ ko mën a gérer ba alal ji ñu leen di jox du doon alal joo xam ne dafay saaw il faut également promouvoir monsieur le ministre l'auto-emploi je l'ai dit tout à l'heure entrepreneuriat à travers le renforcement des fonds de financement qui pourraient contribuer à résorber le gap de l'emploi à cet effet j'invite à plus de coordination dans ce que de faire avec maintenant au niveau des autres ministères Et je voudrais dire que l'ANPEJ aujourd'hui, je l'ai dit, monsieur le ministre des Finances, je sais ce que vous faites pour accompagner l'ANPEJ parce que j'en suis témoin. Mais je pense qu'aujourd'hui, qu'il faudrait davantage, au-delà même de la formation qu'ils sont en train de faire, essayer de travailler à trouver des fonds pour que, après la formation de ces jeunes-là, qu'ils puissent trouver des fonds pour pouvoir travailler. Parler de la jeunesse maintenant pour en à la citoyenneté. C'est également s'intéresser à la citoyenneté, parce que tout à maison de la jeunesse et de la citoyenneté eggalewu ko sax moo tax abréviation bi rek la wax xam nga ay CDEPS li ñuy def bokk CDEPS dafa am na CDEPS boo si demee li ñuy wax PPJ am na fa ay centre conseil ado buy gérer santé de la reproduction des jeunes donc CDEPS bokkul ak maison de la jeunesse et de la citoyenneté parce que pour nga am ay nit ñoo xamante nii dañuy nekk ay xale ndaw yoo xam ne dinañ mën a opérationnel ba pare jëriñ réew mi il faut que citoyenneté bi am ci solo donc damaa bëgg ngeen jàng bu baax li Macky Sall bind parce que wax ju bari ji ñuy wax yëpp c'est pas parce que dañoo soxor de c'est pas parce que dañoo kii mais dañoo xamul te nit nag soo xamul da ngay jàng soo xamul dangay ngay liir soo xamul da ngay laaj wala bu fekkee mun leen a laaj it ngeen di déglu rajo wala ngeen di seetaan télé bu boobaa di ngeen xam exactement ce que président et en de de faire maintenant te actes aujourd'hui devient qui heurte la conscience parce que gis nañ ñu bëri loo xamante ni tey li fi am mooy ñàkk ay maison de la jeunesse et de la citoyenneté xam nga xale boo xamante ne nii da nga koo jël dajale ko ne leen ñëw leen xeex pour dee sa doy juraat ñëw leen sàcc ñëw leen toj Auchan ñëw leen BRT bi nga xamante ni sénégalais yi ñoo ci war a yëg yàq leen ko terre bi nga xamante ni dafa baax mosu fee am ñëw leen toj ko loolu ku koy wax xale moom mooy yaa ngi koy bëgg sànq sànq réew ma donc je pense que monsieur le ministre maa ngi lay encouragé di la félicité di félicité ñi nga xam ne ñoom nga àndal parce que liggéey bi ngay def am na solo parce que soo gisee ñi lay attaqué ñépp kenn attaqué wul ci bilan c'est parce que am na jamono boo xamante ne nii sonal nga leen lool te ba léegi yaa ngi lu ne tuddee nañ la ko tii jiñ la dëmm lu ne wax nañ la ko mais loolu rek la monsieur le ministre dégg nga bul bul bul mer parce que ñoom coono boobu rek la te coono boobu moom feeg yaa ngi ànd ak Macky Sall nga leen koy teg teeg nag bàyyiwu leen ni ngeen mel moom dina continuer def ni mu daan def maa ngi leen di sant di leen gërëm